ba may naan di bég may neexal jotaay di lii yomb te ma neexa seddale may li sedd lool te neex ma ànd ak cafka te mën a bégle bëgg ngeen ko bëgg naa ko plus de saveur boisson yi gën a neex eyi eyi eyi yo ye jaajëfati yarale booy waaye buddeekul nii yow lan la boo ñëwee doo nuyoo tranquille waaye da ngay jaajëf rek de bugatu dafa naa yow da ngay caaxaan da ngay da ngay mbalax wala si dëgg nga rek man mbalax gu de gis nga fii tooguma fi di xam nga ki nga xëcc yow. yow xam nga ki la ma ne ndax yow xam nga kii la xëcc. miir artiste de l'année nga xool yooyu tamit ki la xëcc meilleur gardien de euh, lan moo tax ngay dugg yow la kan ba ba booy dugg fii. laa xam da nga maa xamewul. yow mii. waaw. mii. jotuma laa xamee fen de xamee wu ma la de. ndaama ngay xool Alaaji Ndaama Mbaye. waaw. l'artiste du peuple. l'artiste du peuple waaw. Aba bu ma gisee day daw naaw kottu ma. dëgg la waaw. dégg nga waaw. si yi nga man ñëw ma ci. booy ka eh booy. xanaa xamoo damay noq mag de. bàyyiwuma noq mag dama la ne randul nii. nga may jaay woykat ak lu kenn xamul. gis nga Youssou Ndour bu gën ñëwoon laa wax du dugg si ker gii du fi dugg. est-ce que doo bëgg jàmm dëgg. baax na ah. booy xoola damay nangu guitare gi guitare ko sama am de. yow boo yow fan nga toj. yow xanaa xam mën naa woy Sénégal siri ma ñëwaat woy taajaboon dañuy taajaboon. tam xaritaguñu. to to sawo yii moo la wàcce yii xewi na boy bowoon cam ndiigo cam ndiig ndiga fatanga yaayo gora njabongo xa cam ndiig eh, cam ndiig nana jàppal de ne yow na xam xamoo yeela damay talal sa xutu xata gi bam ne tareet mel ni karo buy doog a pare boy oto bi nga wéeru génn ko génnal génnal génnal génnal rombal rombal rombal booy. waa demal rek demal. non man bu dee dama nekk ci fin de carrière dañ ma ko wax. booy raamal wara torom. yow booy musoo xew. xoolal uy ma surtout maa ngi loolu léegi. musoo tax danga doon saxaar rek. surtout maa ngi loolu waaye yow demal foofu. dama ne surtout maa ngi loolu ma ne nga dem laa wax. man meloon naa ni fan. booy dama lay nokk de. dégg nga li ma la wax. wax ji dam koy mën a arrêté toog génn koñ bi. waay yow ngeen may may wax di pas-pasali bett ngay ngay booy damay bàyyi bàyyi kaay kaay kaay kaay. non non non bàyyi lii il faut que mm. moo defoon lii defuma lii yëguma ko fekk ma ko lii dama ci soxla témoin nga témoigné ma ma nga fekk li mu leer. ana yoon. kaay kaay kaay kaay. li may war a wax doo ma ko wax fi ma ay si si suuf. moo ko nga may yéegal fii fii séeréer. bàyyi mm. Mm. trop si trop. séeréer mi dafay commencé di toroxal nit ñi. ku ñëw daf lay dàq. daf lay yuuxu. daf lay sàng da lay dóor. ah quand même lu ëpp tuuru nit ñi ngi woon mais ñama xit la mujj ñama xit la dóor ba ñama xit woo ma di jooy quand même trop c'est eh, trop loolu dafa ëpp quand même aba ah waaw yaa ma teg fii ne ma ku amul audience wala yorul vignette wala assurance bu mu dugg si kër gi yaa ngi de nga ne ne ma ku ko koo xamante ne amul rendez-vous bum do wax ma wax ko ko muy dof dof lu ma nokk ko ajuma waxuma la dóor ajuma sa dóor yi yeeg sa yi ngay teg ci suuf fii ñun ñoo la gën a dof mën nañ laa jàpp fii ndox la tudd loolu yëngu yaa ngi dégg li ma la wax mu ah moom nit ñi ay minute ak yooyu loolu ngay laaj dafa amati fenn loolu fa la am kan moo naa ko xaar ñu woote ñu xool teg la ci fa fii dóoree dina ko def bañ may woo dama lay tay ci la mbooloo def naa ko réglé yaay ok xam nga mbir mi sax lii du problème fay ma sama dix mille loolu mooy problème bi ah waa fayoo ko dix waaye yow ma xaalis moom dafa ma nekk xaalis bi su ma amee xaalis maa ko jox. waaw comme comme la ko yoree. ma xaalis mu fay la ko. dama tey la dernier délai bi. waaw bu ngeen ma joxul ba minuit jot nag ma yëngal gese. lu du anniversaire ba ngay xaar minuit dama ne la moom moo yoreel jarul nga yëngal gese. déedéet yaa ni woon yaa koy fay. yaa ko yore. waaw léegi yow yaa ko yore. yaa ko yore. waaw comme du anniversaire. waaw da ngeen may fay si tàntàng bi léegi. ah man tamit sama ndey da ngeen may fay léegi. xanaa wala da ngeen may fay. ah non non dama ne. waaw. di ma fay doo fay doo fay onze bi ça va onze bi laay fay. ok onze bi ok. foo baax. all right. Mm. fay ma sama dix mille. sinon dinaa la nokk. Mm. ba gàll sa kaw. ba dori ba dori. ok all right. foo baax. ana waa ah. ah waa kii dëgg yu xule rek mooy xule rek. <laughs>